yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man lam yafqah man qara alqurana fi aqalla min talatin yonent bi nee na ku jàng ku wàccab kaamil ci lu ëpp ñetti fan doo ko doo ko fag doo ko dégg amma weer wi fi nga ko sukkandiku moo dafa am ko saxaaba bu baax bu ragal yàlla bu bokkoon ci saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis yonent bi woote waxtaan ak saxaaba yi ci diine naab leen ñaax leen wax ja dugg ko lool ba ko wax ja duggee mu jóg daal di fabu fabu bu bees daal di ne man daal waat naa ci yàlla ne bis bu nekkati damay woor waaw damay woor bis bu ne te itam guddi gu nekkati damay julli ba bët set te itam fu ma toll damay jàng alquran alquran moom nangam junni dinaa wàcc kàmbi ah moo kooku moom kon defe ngeen ne moom soxnaam lu muy def nag liggéey yim daal liggéey ci penc bi nag lu muy demee yonent bi am ay fan gisu ko mu laajte ana diw ñu ne ko diw daal sa waxtaan woowa nga sa waxtaan jamono yi la passé ba mu ko déggee ba léegi daal moom daal dafa lëlu moom daal bëccëg bu ne nee na day woor guddi gi day julli ba bët set te itam kaamil bi mu ko waxtu wu ne day wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woo leen ma ko ñu woo ko mu ñëw mu ne ko waaw yow yaa wax ne bëccëg bu ne da ngay woor te guddi gu ne da ngay julli ba bët set mu ne ko waaw yaa rasulullah lu baax rek laaj jiw de mu ne ko bul def loolu loolu mënoo ko daal mu ne ko koor gi ci gën mooy koor daawuda deel woor di dog di julli di nelaw da nga xam ne sa bakkan dafa am ci yow xaq sa soxna am ci yow xaq sa borom am ci yow xaq borom àq dina jox ko àq kaamil bi mu ne ko kaamil bi dee ko wàcce weer wu ne loolu mu nga mu ne ko yaa rasulullah man mën naa mën naa lu ëpp loolu nag mën naa lu ëpp weer wu ne kaamil la lu mu tuuti tuuti na ci man dolli ma waaw yonent bi dolli mu ne ko man ma yaa rasulullah man mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa wax lu néew a néew a néew yonent bi ne ko bul weesu ñetti fan yu nekk kaam bi moom sax sax soo ko yonent bi joxoon mooy usbu semaine moo tax ñu bari ci saxaaba yi dañoo def saxalan semaine bu ne ñu wàcc ab kaam bi mu ngoog moo tax sax am na ñuy bind ay ay waqaf yi nga xam ne boo fekkee yaa ngi jàngal quran bis bu njëkk bi nga tàmbalee ci saar sàngam ba saar sàngam ñaar bi nga tam la saar sàng ba saar sàngam ndax buy mat juróom-ñaari fan dañuy teg kaamil bi ak am na taqsimaat yi bare bare ci ci téere yi am na ci bu Seydina Ousmane radiallahu anhu ak ak bu Abdullah bin Mas'ud ak yeneen ak yeneen waaye rek li ëpp ci saxaaba yi daal semaine bu ne benn kaamil lañ daan def waaw gaawaayu njàngum alquran nag warta gën a gaaw ñetti fan yu ne benn kaamil yeexaay ba itam warta gën a yeex weer wu ne ab kaamil mbokk jullit yi bu fekkee loolu xamoon nañu ko nañ ko fàttaliku te bees suñu itte ci jàngiwaat alxuraan ci nit ñi nga xam ne loolu jub ñu ko woon a xam ab bind ngoog bu bees nu nu doon lu nu jàng lu nu xam te buñ fi jógee nu jéem ko jëfe yàlla nu yàlla may dégg ak jëfe ma ngoog su ko defee boo dee jàng alxuraan wan waxtu nga koy jàng boroom xam-xam yi wax nañu ne njàngum alxuraan li ci gën mooy njàngum alxuraan moo def ci biiru julli saxaaba yi daa dañu faral di wàcc ay kaamil yoo xam ne dañ koy def ci biir julli dinaa fi la wax allahu akbar daal di teg loxo yi ci dënn bi xari fatiha ba mu àgg nga daal di dal baqar waaw dal baqar tari ba mu jeex nga dal ali imran mu ngoog tari ba mu jeex mu ngoog boo bu kolee si gi sujjóot jógaat continué waat jàngul lu toll noonu ñaar rakkaat nga sëlmal kabaraat fekk da ngaa fas yéenee wàcceb kaamil ci biir ab semaine waaye kaamil boobu lépp ci biir julli nga ko nar a jàng loolu mooy njàng boo xam ni gën loolu nag ñu ko mën mooy ñi mokkal kaamil bi ñi ko mokkalu tam am nañu ngant waaye kon tam nañu ci jël seen téere te jàng bu ko defee kon njàngum alquran mu ci gën mooy moo def ci biiru julli bu fekkee nekkul ci julli loolu du tee julli gi dana du tee kaam njàng mi dana baax insha allah waaye boo nekkul ci julli ban heure moo gën ci jàng alquran borom xam-xam yi nee nañu guddi inna nachiata al layli hiya ashaddu was'an wa aqwamu qila mu ngo bu ko defee jàngum alxuraan mi nga jàng ci guddi rawatina njël bu njëkk waxtu wi sama borom yàlla di wàcc ba jege ci asamaan su njëkk si di wax ana koy ñaan ma may la ana koy jéggalu ma jéggal la waxtu woowu jàng sa alxuraan bu baax guddi gi lépp baax na mu ngoog bu ko defee bu fekkee ci bëccëg bi la bëccëg moom li ci gën mooy suba bu fekkee ne bii daal yow da ngay jàng waxal ci bëccëg li ci gën waxtu wi ci gën a baax mooy boo nee asalaamaaleykum selmal suba jël sa kaamil nga daal di tàmbali jàng alxuraan mu ngoog bu ko defee nga xam ne itam loolu day lu gën a baax rek waaye njàngum alxuraan amul benn waxtu wu mu bone amul benn waxtu wu mu ko aayee waxtu wu ne jullit bi sañ naa jàng alxuraan bu ko defee suñ dee jàng alxuraan am na ay adab yu ñu war a sàmmanteel bu njëkk bi moo di yow mi koy jàng na nga koy na nga ko sellal ngir yàlla subhanahu wa taala jàng alxuraan ngir yàlla bañ ca jublu leneen bul jàng alxuraan mukk ngir bëgg ko de ak a neex baat déedéet bul jàng alxuraan mukk ngir bëgg sarax yi sarax yi duun noonu nii sunu sunu sunu yeneen mbokk yi di def di mag di di di di di madda madda yu neex di baaral baaral yu neex ndax yàlla sarax yi duun mu nga loolu bu ko kenn def ci alxuraan alxuraan des koy jàng ngir yàlla mu nga ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy nga nga tegginu ci alxuraan boo dee jàng alxuraan nga sàmm nga tegginu ci ci kanamu yàlla subhanahu wa taala te mooy maanaam nga nga teewal sa xol nga teewal yàlla ci sa xol da ngay jàngal xuraan teewalal yàlla ci xol bi xamal ne yaa ngi wax ak yàlla ki jàngal xuraan day wax ak yàlla moo wax leen ma rek kenn ci yéen mbokk jullit yi su demoon ca jàkka ja di waaj a julli ji tisbaar mbaa mu am lu mu fa soxla naka mu ubbi jàkka ji rek ba dugg rek ne yem ci suñu borom yàlla mu toog waaw ne yem ci suñu borom yàlla suñu borom yàlla ne ko julil ba bëgg ñaar rakka mbaaw ne ko jàngal ma ko fii saar sàngam ci alxuraan wax leen ma nu muy toogee ak nu muy jàngee wax leen ma ko rek dugg ci jàkka ji rek mu ne la nga yem ci moom rek mu ne la jàngal toogal jàng foofu saa sàngam wax leen ma nu muy jàngee du ko fonk bu baax a baax a ndax xol bi du fees dell ak ragal yàlla ndax yàlla du fees dell ci xol bi ak xel mi ndax du fonk jàng ma waaw yàlla ka doo ko gis ku leen ne gis na yàlla ci àdduna si waxul dëgg ku leen ne kaay leen ma woon leen yàlla xam ne lu ngeen bëgg a woon a kuweel jinne kuweel seytaane bu leen nangu wante yàlla boo ko gisul tam moom mi ngi lay gis du dëgg mi ngi lay gis boo ko déggul mi ngi lay dégg waaw nga gis yàlla moo am solo wala yàlla gis la yàlla gis la am solo kon nag ginnaaw yàlla gis la moo am solo te yàlla mi ngi lay gis boo dee jàng alxuraan jàng ko jàngiinu ku toog ci kanamu yàlla di gis yàlla mu ngoog bu ko defee nga fexe ba sàmmanteeg ak laab na nga na nga yor njàpp te nga ànd ak cangaay tey dem sa gimiñ gi na set sa gimiñ gi bu bu mu tax ngay jàngal quran te itam boo dee jàngal quran boo ko mënee nga socc xam nga ne socc ci sunna sayyidina Muhammad la bokk sallallahu alayhi wasallam xam nga ne yonent bi ku fonkoon ku fonkoon socc la buy bëgg a jàpp ak buy bëgg a julli soo dee bëgg a jàngal quran utal socc boo amee socc boobu yu ñuy wax al arak muy bent bi daal jëfandikoo ba tey mu gën a baax mu nga boo dee jàngal quran te da ngaa mokkal sañ ngaa tari waaye nag da nga xam ne xool ci kaamil moo ëpp yoon ndax bi ngay xool ci kaamil bi làmmiñ wi ak xel mi ak bët bi ñoo ànd da ngay tari nag làmmiñ wi ak xel mi ñoo ànd waaye bët bi bokku ci moo tax borom xam nañ wax na xool ci kaamil loo mokkal mokkal moo ëpp ab yoon mu ngoon bu ko defee booy jàngal xuraan nga fexe ba jublu penku ndegam du dangaa ne ci xalqa xalqa mooy groupe bu toog def ab cercle di jàngal xuraan te loolu itam daa mat di def dee leen dajaloo di jàngandoo alxuraan si barab ka ka ci dàqa tajwid jiite jiite ndax mu jàngal leen yéen ñëpp ngeen topp ci moom mu sut leen baat mel ne ku leen di sax wala sax ngeen jël kasatu Mahmoud Khalil al-Husari bu ko defee mu jiitu di jàng yéen ngeen ànd ak moom baatam gën a xumb seen baat ndax yàlla bu taxawee ngeen xam ne taxaw nag ngeen taxaw fa mu taxaw bu xëccee ak madd lu ëpp li ngeen ko xëcc ngeen daal di xëccandoo ak moom su ngeen dee bëgg a taxaw ci barab tam taxawu fa ngeen xam ne fii kenn waru fee taxaw bu xunnaa ngeen xunna bu ko defee loolu mooy al qiraatul jamaaiya loolu jullit ñi mën mën nañ koy def te itam ci xayaqu zikri la bokk yi gën a kawe sax ci la bokk bu ko defee kon xalq ba boo ko defee faaw de am ñu jublu penku ak ñu jubluwul penku kon baax waaye bu dee yow da koy jàng soo mënee jublu penku moo gën booy jàng nga toroxlu bu baax a baax toroxlu bu baax a baax a baax teewal yàlla ci xol beeg xel bi te itam li ngay jàng li ngay jàng fexeel ba xam lu mu tekki nga di ko teewlu di def tadabbur borom bi tabaraka wa taala dana afala yatadabbaruuna alquran yaa yàlla mu baax mu baax bi nee na alquran ji nañ koy jàng te di ko def tadabbur soo jàngee laaya ba mu àgg fekk maanaam yi lépp dikkul lépp dikkul ndax lan ndax laaya ji dafa chargé ci ay maanaam lu bare bare bare bare bare dafa chargé ci ay maanaam lu ëpp baat yi ak alfaaz yi ba tax sa sa saw làmmiñ jaar na ci alfaaz yi waaye ba ba àggal laaya ji waaye xol bi nag moom jëlagul maani yi yëpp su boobaa xam nga nooy defa dëppal jàngaat laaya ji nga takkaraat laaya ji jàng ko ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon ba keroog xol bi di fees dell ci maani quran xol bi fees dell ci iman xol bi fees dell ci ragal yàlla xol bi fees dell ci jalaalul quran noonu ni la yonent bi daan jàngal quran sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kàbbar na julli ba tàyyi tàmbali di jàng ba mu yàgg mu àgg ci yenn aaya aaya ji téye ko mu di ko takkaraar di ko takkaraar di dem di ñëw di wax di dem di ñëw di dem di ñëw ba waxtu mu war na julli mat mu ngoog kon bokk tadabbur da ko ciy boole booy jàng alquran nga yëkkati sa baat da mën koo dégg mën koo dégg ku fa jege dégg ko ndara nga xam ne da ngaa nekk ci jàkka wala nga nekk ci barab boo xam ne bi da nga fa nekk si ak ay mbokk julli te boo yëkkatee sa baat mën naa am nga lor leen ndax ñu ngi julli te bëgg nañoo teewlu kon su boobaa nga wàcce baat bi waaye bu dee yow rek wala yàgg sa waa kër ci kër gi soo yëkkatee sa baat alquran ji nga nga dégg ko say waa kër dégg ko say soxna ak say doom dégg ko miiri kër gi ak ak baramoon bi dégg ko garab yi dégg ko ay xéewal yu bare ngi ci awalan yaa ngi yar say doom yu ndaw ci ñu teel a dégg alquran boo sàgganee sa doom bu dee jàng wax alquran dana bokk ci baat yi muy jëkk a génne ndem yàgg na koo dégg thaniyan kër gi insha allah taala feeg yàgg bi def loolu seytaane du fi dugg seytaane du dugg ci kër gu ñuy jàngi alquran saalisan feeg yàgg def loolu say soxna ak say njaboot danañu miin alquran ci seen i xol mën naa am bu yàggee ñu bëgg kon boog alquran boo koy jàng nga yëkkati sa baat aslaf moo yëkkati ko digg doomu te itam bokk na ci ba tey boo jàng alquran nga tajwid ko alquran kenn du ko jàng ci tajwidoo ko soo ko defee ah bakkaar la la ciy fekk de bu fekkee am nga pexe soo amul pexe yàlla baal al imaamul jazri nee na ci téere bu ñuy wax an nashi fi qiraatu ashra nee na jàngkati alquran yi ñett lañu ñett ki jàng alquran di am tuyaaba ak ki jàng alquran di am bakkaar ak ki jàng alquran te naroon a am bakkaar waaye yàlla da koy baal mu am tuyaaba ki jàng alquran di am tuyaaba mooy ki ko jàng te di ko tajwid waaw di ko tajwid ki jàng alquran di am bakkaar mooy ki ko jàng te tajwidu ko te am na kat fu mu jàngee tajwid man na koo jàngi waaye daa doylu walis ko dani man li may jàngee alxuraan ni ko saa bàyyi daan jàngee saa mam baax na kenn dàqul alxuraan mu wax di wax wala laa li na ndongo yi lu xumus wala laa li na ndongo yi lu xumus na ko doon jàng bu njëkk dañ ci doon am tuyaaba dañ ci doon am tuyaaba bu baax ndax foofu la réew mi toll woon waaye nag boo ko fa yàlla weesalee ba indil ñu ahkaamu tajwid hidayatul mustafid am fi ak yeneen xeetu téer yu bare bare bari ñu mën a jàngale tajwid am fi da ngay jóg dem jàngi tajwid loolu mënut a ñàkk mu ngoog boo ko defee booy jàng itam tajwid ci boppam boo ko dee def teewul am na tartil am na xadr am na tax am am na am na tadwir tartil wala taxqiq mooy nga jàng ko njàng mu teey moo xam ne mëdd gi buñ ko sañee def ñeenti xaraka mbaa juróom sañ ko def juróom benn yow da koy def ba juróom benn njàng mu gën a teey mooy taxqiq wala tartil njàng ma ca topp mooy tadwir dafa digg doomu njàngum xadr dafa xaw a gaaw li gën mooy bu fekkee yàkkamti woo amoo ngant nga jàng ci tartiil ndax mooy dëppoog li borom bi tabaraka wa taala wax wa rattilil qur'ana tartila teyit moo dëppoog na sayidna muhammad daan jànge sallallahu alayhi wa sallam sayidna muhammad nu mu daan jànge alquran buxaari solo na jël ca xataade mu ne laaj naa anas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan jànge alquran mu ne kaana yamuddu madda ida qaraa bismillahi arrahmani arrahim yamuddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim anas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daa jàng alquran da ko daa mët da ko daa teeyu bu jàngee bismillahi arrahmani irrahim benn bu ci ne da koy jàng ci teew te teeylu bismillahi laahi gi mu xëcc ko xam ngeen ne xëcc gi ci laahi mad tabii la ñaari xaraka lañ ko war a jox kenn waru koo gaawante genn gaawante bi ko arrahmani rahmani alif gi alif gi ci kaw miim gi di ko xëcc miim googu madd gi madd tabii la dañ ko war a jox ñaari xaras gën jaa néew kenn waru koo baral arrahim nga taxaw fi mu daal nekk madd aarid li sukun war a am juróomi xaraka mu ngoog lu bon bon kooku itam nga bañ ko gaaw yonent bi nag bu daan jàng alxuraan noonu la ko daan teewul teeyloo di ko mët araf bu ne mu jox ko xaqam génne ko ci maxrajam jox ko xaqam jox ko mustaxaq jox ko ay melokaan moo tax ba borom xam-xam yi nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daa jàng alquran xaw ngaa mën a topp ci moom yor xalima di bind li muy jàng ndax tey ndax tey te itam yonent bi su mosaa ubbi bu mosaa di jàng alquran barab yooyu nga xam ne moo am moo am aaya du gis ngeen ci kaamil bi saar yi bu bu bu bindee tuuti nangami baat wala aw safar daa ci def am wërngël def ci ab numéro un wala deux loolu mooy laaya yi yonent bi bu daan jàng alxuraan laaya ju mu àgg day taxaw waaye yonent bi daawul bërle ay laaya kon laaya des ci taxaw te itam du ci laaya rek la ñu war a taxaw boo demee bay jàng alxuraan am na place bu ñu war a taxaw wujuban mu ñu wax waqf laazim am na place bu ñu bañ ku fa taxaw waqf mamnuu la te am na mandarga ci kaamil am na place boo xam ne sañ nga faa taxaw sañ ngaa jàll te taxaw a gën mooy al waqfu awla jaa'izu tarafayni wal waqfu awla am na place boo xam ne sañ ngaa taxaw sañ ngaa jàll waaye jàll gën mu ngoor mooy al waslu awla am na place boo xam ne sañ ngaa taxaw sañ ngaa jàll te ñoo yem mooy mustawa tarafayni lépp jullit da koy xam ne te lu yomb la lu lu lu jege jege jege bu ko jul bi ittewoo rek lu ngay ittewoo am loo jox soxna si ci dépense genn wàllar gi doo ko ittewoo rek xam yooyu rek da ko daal di xam yal na yàlla dimbali bu ittewoo suñu diine comme ni mu waree. ci hadis boo xam ne Tirmisi yi moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jërëb ci Umu Salama Umu Salama nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kaana kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqta'u qiraa'atahu yaqul الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها مالك يوم الدين أم سلمة نينا نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم بنا جنگ القرآن نينا تكوي دوك جمتل بجنگ الحمد لله رب العالمين لي تخو لي تخو بجنگ الرحمن الرحيم تخو bu ne malik yawmi diin taxaw kon nag ndekete ki jàng bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim ndekete kon li muy def mi ngi jàng mi ngi ci am tiyaaba insha allah waaye ndax mi ngi jàngee ne sayidna Muhammad daa jàng fatiha déedéet ndax daa burle waqa yal na yàlla dimbali ba nu xam yoonu sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lu ñuy def te buñ ko xamee nu jaar bokk na ba tey ci li lay dimbali yow jullit bi ba nga mën a saxal njàngum alquran wird alquran mooy mooy sa kër na nga fa wut place da ngay jànge waxaf sa kër na am place boo xam ne fii fi ngay jànge alquran ma ngoog loolu da lay dimbali rek boo boo tax di dee place tax di tam waxtu waxtu sàngam bu ñëwee daa dem ci place sàngam toog fa jàng fa nàngam muy ñett waxtu yi nga tax diit ko place bi nga tax diit ko li ngay jàng itam ci ñëpp daal ci ay xisib nga tax diit ko loolu te di ko warmaal bu yàlla dogalee mu rëcc la ba am lu ca manqué su beneen ne nga fexe mu bañ a manqué loolu dana la dimbali doonul lu war waaye dana la dimbali ci nga gën a mën a saxal njàngum alquran ci sa kër soo tàmbalee di jàng alquran soo tàmbalee di jàng alquran na nga màggal alquran ci fonk ko ba nga xam ne doo ko boole ak leneen ñiy dëgg sa kàddu sax ñiy dëgg kàddu gi sax ñiy dëgg alquran mbokki jullit yi lan la yàlla bëgg ku ko def saa boo demee ba dégg ku jàng alquran ah damay laaj damay laaj lan la yàlla bëgg ko def boo demee ba dégg kàddu alquran ah déglu déglu borom bi tabaraka wa taala dafa wax fa ida wa ida wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun ci ali imran nee na bu buñ dee jàng alquran na ngeen déglu te xerawlu ndax yàlla yërëm leen kon ba ki jàng alquran ña fa jege sax bu fekkee nekkuñu di liggéey liggéey bu am solo lool nañ ñëw toog toog te déglu mu ngoog ko ko defee suñ toogee di déglu bu leen kenn yàqal la ñuy def bu ko kenn dog feeg feeg waxam ko bay am mu ngoog loolu mbokk jullit yi mooy aslëf ci teg gi ni jàng alquran te itam jullit bi daa war am ku koy jàngal alquran bu fekkee kenn ku nekk ci nun am na koy jàngal alquran baax na su fekkee am na ci nun ñoo xam ne amuñu ku leen di jàngal alquran nañ ko wut ci seen koñ ci seen koñ koñ bu ne yàlla dafa ñàkk def koo xam ne kii mën naa jàngal waa koñ ba alquran ñii di jàng ci suba ñii di jàng ci bëccëg ñii ci tisbaar ñii di jàng guddi waaye rek demal jàngi alquran yonent bi nee na xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ñi gën ci mooy ñi jàng alquran te di ko jàngale mu ngoog yonent bi nee na afala yaxdu ahadukum ila almasjidi fa yaclama aw yaqraa ayatayn min kitabillah jal azza wa jalla xayrun lahu min naqatayni wa thalathun xayrun lahu min thalathin wa arbaun xayrun lahu min arbain wa min acdaadihinna min al ibil rawahu muslim yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen xanaa munul bu xëyee mu dem ca jàkka ja jàng fa ñaari laaye alquran wax li mu rek koo xam ne kii daa dogu ci bis bu ne mu jàng ñaari laaya kooku weeru ñaata laaya lay am weeru ñaata laaya lay am juróom benn fukki laaya du dëgg at mi ñaata laaya lay am ah xool leen bi ñu fi toogee daaw daaw ñoo nga fi toogoon di waxtaan ci koor bi yàlla na yàlla may nu nu nu fekk ay diw ni bare bari daaw bi ñu fi toogee bu fekkoon ne daa am mbokk yu fi jóge woon daaw boo woowee ba ren muy ñetti téeméeri bis ak juróom fukki bis ak ñeent bis bu ne jàng na ñaari aaya bis bu ne moo kon ñaata laaya la mbokk moomu di mokkal lu bari loola saxaaba yi ñi ëpp ci ñoom bi alquran di ñëw fekk na ñu am ñeent fukki at jëm kaw waaye teewul fexe nañu ba mokkal kaamil bi ci kaw sunu dogu yal na yàlla dimbali ci loole yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam te kenn ci bu xëyee dem jàkka ja jàng fa ñaari laaya ci téeréb yàlla bu tedd bi te xam ne loolu moo gën dem ca dëkk ba lijjanti fa ñaari gëléem mu nga xëy xëy jàng ñaari laaya yonent bi nee na moo gën dem ci dëkk ba lijjanti fa ñaari gëléem mu nga ñaari gëléem wala ñaari ñaari gëléem luy njëgam xaymaal leen ma njëgu ñaari gëléem ah xaymaal leen ma njëgu ñaari gëléem trois cent mille xëy lijjanti ji six cent mille ba muy ñaari trois cent mille yonent bi nee na xëy jàng ñaar laaya ci jàkk jàkku gën waaw te nee tam nee na xëy jàngi fa ñetti laaya moo xëy moo gën xëy dem ci dëkk ba lijjanti ji fa ñet ñetti trois cent mille mu ngo ah mbakk jus yi alquran bis koy fonk mbokk jullit yi ab jullit diineem dafay ñor lu toll ne li ko adduna ñor wala ma rek wax dëgg yàlla nag kuñ ne woon ah boo xëy jàkka dem ñu ngi koy jàngal alquran boo demee rek a mokkal ñaari laaya dëkk ba nag moom am na barab boo xam ne boo fa demee boo fa demee nag mën na la jëndi trois cent mille ba six cent mille ah moo ko fi ngeen di aw mbokk yi fi ngeen di aw yonent bi nee na aw ci jàkk ja nee na moo gën nee na mokkal fa ñeenti laaya ñeenti laaya alquran yow mokkal ci jàkka ja moo gën ñeenti gëléem wala ñu ne ñeenti trois cent mille yoo lijjanti ci dëkk bi kon mook nam jàng alquran loolu rek la yonte bi bëgg ñu def ko sallallahu alayhi wa sallam kon nag alquran amu noonu ndaxte dafa am ay ngëneel yu bare bare bari ngëneel yooya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci atlaf ci ngëneeli alquran jàng ko nee na man qaraa xarfan min kitaabillahi fa lahu bihi xasanatun والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي يعني بنينا صلى الله عليه وسلم نانا كجانج أو حرف بن حرف تكامل بي نانا يلا دينا بند الفكيو ndekete boo dee jàng alquran ndeke boo dee jàng alquran ndeke malaaka mi day topp ci yow benn xaraf bu ne mu bind la fukki yiw fukki yiw ah mbokk jullit yi loolu baax na kat mbokk jullit yi soxla na soxla nañu ay tuyaaba kat xam ngeen lu tax bàkkaar yi daa bari am yéen bari wu leen ay bàkkaar nun de dañuy tooñ rek nun de dañuy tooñ rek yal na yàlla baal ndekete boo ubbee sa kaamil toog di jàng ndekete malaaka maa ngi toog araf woo jàng rek ci alquran araf bu ne mu bind na fukki tuyaaba fukki yiw mu ngoog te yonent bi ne waxuma ne alif laam miim wenn xaraf la de waaye boo ne alif laam miim alif gi aw xaraf la laam gi aw xaraf la miim gi aw xaraf la kon alif laam miim ñaata ñaata tuyaaba nga ci am fanweer tuyaab mbokk juri njàngum alquran sakkan na lool nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na almaahiru bilqurani maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaaq lahu ajraan rawahu muslim yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ki jàng alquran ba man ko lool mokkal ko wala mu miin ko lool ba nga xam ne bu koy jàng da koy jàng jàng mu rafet mu rattax nee na kooku sama borom yàlla da koy yéege ba muy ànd ak ndawi yàlla malaaka ya malaaka yu sell yu yàllay àndal ah ndekete ki jàng alquran te man ko ndekete yàlla da ko yëkkati ba boole ko ci rangu malaaka yi moom la ko juri ndax loolu jëru jàng alquran loolu jar na jàng alquran ndekete yonent bi nee na ki jàng alquran ba miin ko ba mu war a tax ci làmmiñam bu bu bu yàlla da koy boole ci rangu malaaka yi leen ci yàlla dimbali waaye rek bu nu fàtte rubba taalin lil qurani wal quranu yalanu waaw yonent bi nee na bari na kuy jàng alquran te fekk alquran da koy alquran da koy rëbb te bu ngeen gisee ma wax loolu damay bañ ko woru man alquran di ko jàng ñaa nga mën a tax rek daal ne man maa malaaka yee yem te yow xamugoo ndax yow li ngay jàng ndax yàlla nangu na ko xamugoo ndax yow mii sax bokk nga ci ñuy jàng alxuraan alxuraan di leen rëbb moo gaa yi moo gaa yi alxuraan ku mu rëbb foo jëm ah xoolal leen ma koo xam ne kii da ngay jàng alquran te fas fasi alquran yi alquran bëgg ko fas yow bokkut ak li nga fas li alquran bëgg ko gëm bokkul ak li nga gëm li alquran bëgg ku koy def bokkul ak li ngay def li alquran bëgg ku ko bàyyi yow bàyyi woo ko ah loolu kat bat naa seet kon ba kii alquran daa war a fonk boppam daa war a jéem a xam ne daa am fu mu war a jaar ak fu mu war a jaar daa war a doon alquran ji dox yal na ci yàlla dimbali kookee nag moom la yàlla wax moom la yonent bi wax ne moom day yàlla da koy yéege ba martabaam yem ak martabay malaaka yi mu ne ki nga xam ne kii moom da koy jàng mu jafe ci moom walladi walladi yaqra'u alqur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq ki jàng alquran du nagg-nagg du deltu alquran di jafe ci loo ci moom lool am amul am na ci mbokk jullit ñu wax ne bu ñu jàng alquran day jafe lool ñu sonn ci lool te buñ jàngee lu bare bare bari dañuy mokkal tuuti am déet buñ jàngee lu bari xam tuuti yonent bi nee na ñooñe ñaari tuyaaba la ñuy am tuyaabay njàng mi ak tuyaabay coono bi ñuy def pour pour mokkal kon boog nekk alquran lu ci waay def rek moom doo ko perte yal na yàlla dimbali ci njàngum alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci beneen xadis boo xam ne muslim moo ko solo iqra'u alqur'ana fa innahu yaati yawma alqiyamati shafi'an li ashaabi yonent bi nee na ngeen di jàng alquran ndax bu yemal qiyamatee alquran day ñëw di di ramm ñenam waa alquran alquran da leen di ramm yal na nu yàlla dimbali alquran feneen mu ne alquran shafi'un mushaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qaadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila annar yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam alquran nee na day ramme bu yemal qiyamatee ku ko doon jàng di ko jëfe da lay ramm tey tan ko tàggane woon bu dajeeg yow day xulóog yow ah kenn ku nekk ci na seet ba xam lu mu seq ak alquran kenn ku ne ne weet ak yàlla seet ba xam ndax dafa yaakaar ne bu àllaaxira bu alquran doxee ci biir mbooloo mu yowmal qiyaamati ba taseeg moom da ko daa kii du yow yow day musu wala yàqal sa dara xama woon ci moom dara yow day yow day yow day daa dina saa borom yàlla kii day moom musuma ko yàqal ay nelawam musuma ko yàqal ab noflaayam musuma ko yàqal wutum addunaam kii daal moom moom xulóobu xulóobu méttee méttee méttee méttee wala mu ne alxuraan na ah est ce que kii diw yow day yow day yaa nekkoon ci man di ma jàng yow day yaa nekkoon ci man di ma jàngale yow day yaa nekkoon ci man di ma jëfe yow day yaa nga xam ne loo doon def mbaa loo doon wax yaa ngi koy jëlee ci yoon yi ma andi woon alxuraan yonent bi nee na shafi'un day kookee kookee alxuraan ne yàlla na nga ma tin ci kii ah alxuraan ne yàlla na nga ma tin ci kii yóbbu na ko àjjana wala mu ne wala alquran ne yàlla kii daal fuddal na ko yóbbul ma ko safara kenn ku ne ci na seen baxam bu alaxira ndax dafa yaakaar ne alquran da koy ramm am dafa yaakaar ne alquran day xulóog moom yóbbu ko tribunal ci kanam yàlla subhanahu wa taala yàlla nu yàlla baal yonent bi teg ci ne ku fab alquran teg ko ci sa kanam di ko jàng di ko jëfe mu woo mat la yóbbu àjjana ku bàyyi alquran sa gannaaw faale woo ko mu mu gétan la ba yóbbu regat la ba yóbbu la safara yàlla nu yàlla musal ci safara mu ngoog bu ko defee beneen xadis yonent bi wax ne man qaraa alqur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu taajan yawma alqiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i shamsi fi buyuti dunya law kanat fikum fama dannukum billadi amila bi hada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku jàng alquran te jëfe li ci nag waxuñu yow mi def loolu waaye say wayjur bu àllaaxira yàlla da leen di solal ndëpp xam ngeen ndëpp de ndëpp xeetu mbaxana la xeetu mbaxana la mooy mbaxanam buur mooy mbaxana yi nga xam ne buur yi moom la ñuy sol te ñoom rek ko fi ne sol te buñ ko solee rek ñoo xam ne kee mooy buur yàlla nee na ki nga xam ne kii day jàng alquran di ko jëfe way juram la ñuy wax danoo jëlle moom waaye way juram yàlla da koy teral yawmal qiyaamati teraanga joo xam ne ji da koy solal mbaxana moom yi ndëpp moom yi ndëpp moo xam ne day rafet lool taaru lool ba mooy gën a rafet suñu wàcce woon biddiw bi gën a rafet ci biddiw asamaan suñu wàcce woon weer wi suñu wàcce woon sax jant bi indi ko ba ci sa biir néeg ah xanaa bu ñu wàcce woon jant bi indi sa biir néeg mu nii ba dana leer xanaa de dina taar